tagg ki nga xam ne mooy ministre bi ñëw bu defee après nga yëkkati sox dem sa bu ko ñu voté mu dem quatrième chose mooy assemblée nationale débat plénière nit ñi demoon nañ ba seetaanuñ ko woon mhm. mais ren ñëpp ko doon seetaan parce que bu njëkk ñaari télé moom ñetti télé ñeenti télé mhm. li ñu ciy wane tuuti lañ ciy wane mais tey même les chaînes YouTube nit ñi dañ koy suivre di suivre débat yi foofu donc je peux dire que sur ces quatre raisons am benn minute boo xam ne day xaw a yàq kart gi rek mu xejamal ko kon moo tax ñun waruñoo focaliser wu ci benn minute boobu bi nga xam ne mooy yàq match bi mais ñu focaliser wu ci quatre-vingt-neuf minutes. mais non ça c'est tellement intéressant. benn minute boobu yàq. oui je suis d'accord parce que jigéen lañu fa toroxal. non non je suis d'accord jigéen lañ fa dóor. dafal ndànk xam nga jigéen lañ ne moom lañ yàq ëmbam. non loolu seen wax la ñoom. non seen wax la xam nga gis nga oga anga tig. Hmm. tig taxul boo gisee dara rek dara moo tax. gis nga am na koo xam ne ak ay ñoñam muy soxna Ami Ndiaye ak ay ñoñam biir commission lay commencé booy wax sax li nga xam ne moo jëm ci wàllum Sénégal jëm ci wàllum li nga xam ne moo soxal Sénégal yi day jóg saaga la ba nga tooy xepp moom ami ministre yaa ngi toog ñëpp ngi toog di seddant ay seede ndax fi lu ñu fax dañ koy waxaat laaxira mais yow ci gardes ton bi ci mujj mooy bi mu jógee non seulement dafa saaga baara dolli parce que bu ma waxoon ku bokk suñu camp ne man exactement saaga man li ma dégg man li ma xam ci saaga sénégalais dañuy déglu waxal lan la ko wax loolu xalaatuma ko non sama yar non non non saaga ma dafa yomb pour rien au monde bu la neexee saaga dafa graaw de saaga li nga wax ne dafa graaw pour rien au monde saaga baara dool yi ngeen ah. bàyyi continuer liggéey bi saaga xam nga luy saaga san dépend ci ni nga ko jëlee yow. non déet saaga bi nga wax ñi ñi ñu ngi ko jëlee. non ñi ci dellu non laaj ko ndeyu mbi gi laaj ko suñ baara moom ci boppam. très bien léegi mu wax mu wax ko loolu ba pare. non seulement mu wax ko loolu ba pare. nit ñi suñ baara jóg nit ñi jàpp ko maam jaara faam ak ñeneen ñëpp jàpp ko mu riir jël siège bi ne ko daaw defaloo naa la fi bagage ren tam boo dof dofloo naa la fi defalaat bagage nit ñi jàppaat ko moom Amy Ndiaye moom ci boppam. gis nga gis nga commission li tax commission duñ fa yóbbu caméra duñ fa yóbbu enregistreur duñ fa yóbbu dara xam nañ parce que loolu bokk na ci. kon du ma ñëwaat ba fii ci place publique bi di nettali la nga xam ne loolu lañ fa neex waaw wër ko wax ko laaj ko ko bu la neex incha allah rabbi biñ jógee ci loolu kon xam nga ne kooku ñun waxuñ ko ku mel ne Ayib wax mu ne xoolal le vilain laa di wax parce que kooku ñun ñoo bokk. loolu dafa ñaaw. ku mel ni ku mel ni Samba Dang buy wax mu ne xoolal le comédien séeréer laa di wax ku mel ni Abbas Fall buy wax mu ne xoolal le citoyen de Malicounda ki nga xam ne dëkkul sax Dakar nekk maire de Dakar di wax yooyu yëpp mu ñu ko tuddee. ñu jóge ci loolu loolu yépp ñu muñ ko ñëw ba biir euh, plénière gis nga wolof moo ne ñun Sénégal lañ dëkk nous sommes dans l'empire wolof moo ne doomu aadama bu ko xeebal ñett yi. boo ko xeebal jàngoroom ndax mhm. xamoo nu mu toll bëñam day métti sax nga xeeb ko fekk mu ngi bëgg a dee nit doo ko xeebal ki nga xam ne mooy bësam mhm. damay am sama ngénte nga ne ah kii de du dara ngénteem fekk man ngénte boobu xamoo ni mu toll ci man waaye nag doo ko xeebal wasilaam ndax xamoo fan la toll ci moom mhm. ñett yi boo ko xeebalee doomu aadama rek xeebal nga ko léppam dëgg la nga ñëw plénière nga sàllalu sëriñu jàmbur wax ca la cay wax ndaxte quoi que l'on man maa ngi rendre hommage sëñ Moustapha balaa maa rendre hommage sëñ Moustapha sëñ Cheikh laa njëkk rendre hommage parce que yar na njabootam wax leen li nga xam ne moom mooy àddina ba pare ne leen nag réew mi lépp lu ñu fiy séddale war a ñu ngi koy def da ngeen ci war a bokk parce que da ngeen war a bokk ci ñiy defar réew mi loolu moo waral sax ñoom ñu ñëw ba biir assemblée nationale kooku du député du président parti parce que Cheikh Youm mooy président parti ba du ministre donc amul ñett yi parce que assemblée nationale ministre moo fay nekk nga indi sa budget woon ñu war koo wote wala nga nekk député ñaar yi du ci benn turam lan moo koy yóbbu assemblée nationale bu nga jël ko wax ko la nga koy wax ba pare nag kon ay nit naqarlu ko taxaw ne kii li mu wax ni daf ñoo naqari bi loolu amee ñun art euh, nga xam ne mooy gérer suñu police à l'intérieur de l'assemblée nationale président assemblée nationale mooy gérer police boobu noonu Seydina Omar bu a def dañu koy wax ne ah monsieur que kii li mu wax ni waru ko woon wax Massata jóg def rappel au règlement dem taxaw ne ko monsieur le président. mais mais mais ba tey aussi loolu hmm? expliqué ma ñëw rek ma ñëw rek ma ñëw rek damay damay dem ci genèse. damay dem ci genèse non non pour le non non c'est très important mais non ah, ah, non non ñëpp xam nga tooñ tamit bu amul fay du am il faut tam wax tooñ fekkee gis nga salaan il faut ñu wax tooñ di wax lépp leeral lépp il faut lépp leer salaan moo gën a gaaw a jooy fii gis nga salaan bu amul deux heures temps déedéet dama lay expliquer rek moo amuñu temps mais kon kon lañ expliquer jeunesse ñu pare ñu jóg mais c'est normal c'est normal ñu xam ko parce que moom moo fa nekkoon salaan non xam nga lu tax non ah. am na ñu fa nekkoon aussi ñoo xam ne ñun aussi dañuy dañuy gëstu dañu nekk ci presse bi di di reente di xam li fi xew yaa ngi dégg nañu waxante dëgg te yàlla tax bugguma ko couper na continuer ki fekkee ak ki ki nettali ki fekkee ak ki nettali mm-hmm. yaakaar naa ne booy déglu ki fekkee nga war a déglu mm-hmm. Mm-hmm. waaye ki nettali pas mu dee bu la neexee bu la neexee bu am ay intérêts divergents la neexee parce que votre parce doo mës dégg ñu ne la Ami Ndiaye dóor xam nga ba léegi yaa ngi koy insister ci affaire dóor bi yaa ngi naan sax amul amul raison mais ba léegi ñoom duñ ci dellu si toujours dañuy jëm a expliquer ak man maa ne à n'importe quel moment ak lu mu mënti doon lépp lu ko ma Amy Ndiaye mën a def amul droit dóor ko parce que du moom mooy fajal boppam loolu loolu ngeen war a wax te muy dëgg non dinaa ñëw de parce que mën ma daggee nga ah, gis nga salaan moo gën a gaaw a jooy fii gis nga boo jëlee dagg ko suuf hmm. nga so nga kii ko sànni ko salaan bi sax day jooy mais boo ko laalut du jooy gis tey li waral loolu yëpp mhm. donc bu loolu yëpp si fii mhm. loolu la nit ki nag doomu aadama pas-pasam la mhm. boo laalee pas-pasam laal nga ko te doomu aadama nit kese la nit kese la donc su boobaa moom ci boppam moom mooy xam nag ne nit la am na foo xam ne boo ko fa laalee mën na am kii maintenant man je condamne une chose mooy l'inviolabilité de la personne man muy góor muy jigéen man du ma yëkkati sama loxo mukk laal ko que ça soit clair man je l'ai condamné mais nag nit aussi dafa am loo xam ne cëslaayam la xolam la boo ko laalee laal nga ko te te defal ndànk beneen mbir. te boo ko laalee daf ko war a fajal boppam. non non non mais nag Aliou je désolé mais Sénégal moom nekk na dëkk boo xam ni koo fi laal sëriñam mu yëngu. waaw léegi xam ne. Ah. dëkk bi évolué ne. beneen mbir léegi parce que point yooyu dafa sensible ba nga xam ne waruñu ko sax laal xam nañ waxante lu nekk mais nañ bàyyi sëriñ nañ bàyyi sëriñ ban question ngeen war a ah. laaj mooy li mu fi laajoon keroog. waaw ah. mooy mooy mooy mooy mooy un homme un homme politique et un marabout hmm. wala un chef religieux est-ce qu'on doit pouvoir faire la différence. xam nga man waxoon naa la dans une république qui s'appelle le Sénégal. man dama ne woon question yooyu laa bëgg ñuy réfléchir. mais moom loolu mooy fond bi. mais moom léegi parce la sëriñ bi yoru nekkul chef de parti. du euh, ministre du xam ngeen xam ngeen gis nga député yooyu nekk foofu. waaw buñ sëriñ sëriñ ci ci ci bénédiction sëriñ Moustapha lañ fa nekkee. non bénédiction nga. non dama lay wax xoolal non xam nga xam nga on sait bénédiction. on sait comment marchent les partis non kon man nañu parti politique non non nekk kon. Ah, mu nekk député. Ah, comme yow yow Fatou Ndiaye Fouta nekk député ah. juste 30 secondes Koura Macky mi nekk député Macky tax juum nga bàyyi ma juum nga waaw mun naa juum nga juum bu rëy xam nga juum nga juum bu rëy les les voix ne sont pas les mêmes les vocations ne sont pas les mêmes dafa ndànk rek waaw dafa ndànk non juum nga non non non nit ki boo juumee da ngay nangu ni juum Koura Macky du coordinateur départemental Koura Macky yorul sax cellule Koura Macky yorul section communale mm. Koura Macky Macky Sall moo jël bikam bind ko mm. ñun on est dans le cadre d'une coalition mm. et dans le cadre de cette coalition là dañoo toog teg ay profil profil yi ku nekk xool ma samba ma dem affaire yi tout ça coalition bi tànn ñu <laughs> xool kan mooy dem Ousmane Sonko mënut a jël diw ne ko dugalal moom moom dañ ko jiital bu la neexee mais xam nga nag nit ki lan moo gën a métti mooy yow non mooy yow <laughs> nga am sa xelu bopp nga ne nag diw mii nangu lu ma ko xelal c'est ça c'est là commence c'est là où commence la pauvreté intellectuelle gis bu ma la nangulee da nga may nangul yow mais yow nga nangul ba pare man may dund man ma yore sama gétt di ah. sàmm nga ne ma yow sa nag bii baaxul te man maa xam sama wax naa juum dama juum dama juum comprendre wala léegi nag ma ñëw non non ma ñëw ci leneen mooy bu loolu amee donc bu loolu amee moo tax man la léegi te ensuite Massata démb hmm. wax na ko nee na man awma intention dóor benn jigéen kii ni jigéen di jëlee coquetam comme ni ñu ko defoon François euh, kii euh, kii euh, Emmanuel Macron wala ñu defoon ko keroog Barthélémy Dias ma ki jël coquetam de ko da koy sànni Barthélémy Dias man loolu laa doon ñëw pour këf mu sóoram mais bi ma gisee may wàcc mu yaakaar ne dama koy dóor te man intention pour dóor ko mais dama bëgg ñëw dafa dox dafa dox 5 mètres. dafa déplacé wu ñëw. pour faire du mal non waxante dëgg. tey na ko tey ko rëccu na ko rëccu ko non mun na ko rëccu waaye mun na ko rëccu waay. bu ko déplacement boobu yëpp c'était pour ñëw ko ci musóoram il faut ah. arrêter un peu quand même intention il faut arrêter nañu waxante dëgg yàlla lan lay njëkk a fay <laughs> quand même avant muy fay jëf lu muy njëkk a fay yéene yéene mm-hmm. lay njëkk a fay mm-hmm. kon nit ki bu la nee lii mooy sama yéene te yéene yàlla ak nit ki rek moo ko xam mm-hmm. kenn xamul yéene d'accord naa kenn xamul yéene sama kon nit ki bu taxee ne la lii mooy sama yéene nangul ne lii mooy yéene loolu sax mun naa ko loolu sax ba tey d'accord naa ko parce que même aussi Mamadou loolu sax ba tey d'accord naa ko parce que même aussi Mamadou Niang dafa jàpp ne moom légitime défense la doon ah d'accord légitime défense mu tël ndaw soo si biir bi génneel image bi léegi bu carré bu ñëw rek dañu ko xoolal image bi soo génnee léegi léegi gis nga Mamadou Niang bi muy taxaw oh, man maa taxaw bi moo yore euh, non non non. utilisé man je suis au bi dañ ko fekk fi mu toog parce que femme bi xëccuñu musóoram. non femme bi xëccuñu musóoram non parce que duñ war a loolu ensuite nii ñoom nekk en sursis pour mhm. mhm. euh, am na lu ñu wax devant le juge. Mhm. Euh, le 26 lañ lañ leen war a lañ leen war a libéré ban lañ leen war a atte. te gars yi nañu amaana bu fekkente ne le juge topp na procureur ci la muy sàkku si ñoom. bu baax kon amaana mën nañu leen révoquer. dootu ñu ne ay député. te boobaa aussi mën na leen porte préjudice seen waa coalition Yewwi. xam nga kii yéeg ci garab te wàccagul mënoo wax la muy wàccee. bu wàccee boo pare lay soog a xam lan lay wàccee. kon yéen ak nguuru Macky Sall na muy demee nii yaakaar am ngeen njort nañ nii dañ leen bàyyi ñibbi. comme délibéré bi lëndi la. am ngeen si njort yéen actuellement délibéré bi <laughs> hmm. parce que moo tax vice de forme yooyu hmm. Euh, président bi mu ne da koy joindre au fond mhm. parce que bés buy délibéré lay wàcc lay wàcce yëpp parce que député dafa am immunité parlementaire surtout ça fa laa bëggoon ñëwee te immunité parlementaire boobu noonu tax na bu nekkee en cours de session même si s'agit même s'il s'agit d'un flagrant yi mhm. dañoo war a lever son immunité parlementaire ba pare soo ko mën a soo ko mën a àtte d'autant plus mhm. mbir mi bi mu amee le premier le premier bu le

ñu koy sóobu yóbbu dig ñu ne ñu ne flagrant délit loolu y a vice de forme déjà. presque une semaine kenn gisu leen. non non non non bul ma wax loolu. pendant une semaine fu ñu nekkoon kon réew mi kon fu ñu nekkoon milliards yi ñuy voté pour réew mi. mais da wër da wër ba gis. réew mi ñuy voté pour ay milliards wala ngay wër ba gis wala bala ngaa gis mu fekk lii moo tax sàcc gi bëri. Mm-hmm. lii moo tax leneen ak leneen bëri. te kon réew Euh, sa pap sa euh, euh, Masata aussi ñu ñu fu ñu téy leen. Mhm. alors que am na ñoo xam dañ fay def lu ne weng. te la def ci cour des comptes bi daanaka dafa doon loo xam ne haute trahison la. dañ mhm. tudd ci ay ministres gars yi dañ doon xaar si ñoom ñu jàpp leen. Mhm. yéen bon dégg naa bëgg en tant que député def ngeen ay questions. yoo leen question d'actualité question d'actualité pour vraiment ngeen woote asa Amadou Ba assemblée. comme ça ngeen leeral ko. mais loolu boo leen ko gisee est-ce que bettu na leen. non mais bettuñu parce que déjà damay jël un exemple. Euh, jour bi Ousmane Sonko demee wuyu euh, le président Macky Sall mais biñ génnee président Ousmane Sonko daf leen ne ngir yàlla ak yonente bi lii nii fonds yi Sénégalais yi jox leen parce que ce sont euh, les les les les les les privés les sénégalais yow mi xam naa bokk nga ci ak état ñoom ñoo dajale ba nga ñu jël ko jox ko lu tuddee ko fonds Covid force Covid. mun leen góorgóorlu leen ngir yàlla yonente bi bu leen ko jox ma sàmba wala ma demba jël leen ko delloo ko ci sénégalais yi parce que ba muy wax loolu xam ne ñi ngi ko siqal ñan lañ xam nga bukki kenn du ko dénk seel mais ñun bu ñu jëlee suñ 780 milliards dem di ko dénk ñi nga xam ne ñoom ñoo détourné 6 000 milliards ñoo détourné 32 milliards ñoo détourné 94 milliards ñoo détourné 29 milliards mais ñun ñoo ko def ñun ñoo jël bukki dénk ko seel te bukki bés boo ko dénkee seel balaa moo yàppal kenn yàppal boppam ba pare. maanaam ñuy bukki yi. <laughs> ah waaw <laughs> moo tax ñoom ñu yàppal seen bopp. moo tax bi rapport des cours des comptes génnee nit ñi di wax man leen non lii bettuñu. du ne duñ ne buleen ñaata yoon lañ fi dénk bukki seel mu seelal boppam yàppal boppam mais loolu lañ def ñoom donc séddale bukki lañ def. bii bukki bii njur bii sàmm te bii ku ci euh, njëkk yaa ko moom te tey nga mais ci am ay recommandation à ce que vraiment gars yi ubbi ay information judiciaire ci sur douze personnes. waaw est ce que am ngeen jottug rafet ne loolu dana am. mais kan mooy fi waxoon ne euh, vous ne savez pas combien de dossiers j'ai mis mon coude kan moo ko fi waxoon waaw ku la wax loolu kañ ça veut dire que ne boo ko yóbbalaatee beneen dossier aussi mu tegaat loxoom rek d' autant plus que moom moom ci boppam moom moo ne instant yi fu mu toll nii li mu bëgg mooy Euh, am benn troisième candidature pour mun a déposer pour am son troisième mandat mais kooku kañ dossier bu ñëw day gën a dugal boppam ana 25 personnes yi fi waxoon ci CREI yi. xam nga 26 kenn moo ci des mooy Karim ñi ci des ñoom ñëpp ñu ngi ci gànnaaw mais kooku jarul nit ñi di xaar ci moom pour mu ne suba dina la indil lu leer ci dossier bi donc Cour des comptes def na li mu war a def. Sénégalais yi gis nañ ñu war a gis donc ñun ce qu'on euh, demande mooy lan mooy que ni les les deniers publics sénégalais nañ ko joxaat alalu Sénégalais yi nañ ko joxaat Sénégalais yi. parce que soxor weesul soxor weesul Covid li ñu fi wax. mais heure bi jeex heure bi jeex na de man aw ma fi njëriñ tey ah. ah. non si yaa ngi posé question fi njëriñ. Ah, yaa ngi posé question non posé wu ma question. wala li muy wax dañ ci d' accord ak moom. non non non dama si d' que mënu ma échange non mais parce que non non parce que mu non non non. mais pourtant allez-y. Ah, je suis à <laughs> man euh, bu leerul nii rek échange bu amul rek damay kii. non leer na nañu de. wax nii yëpp. leer na nañu ni leerul jóge fii dem ci aw Kudu Ndiaye jóge machin non bu ñuy waxtaan ci benn détail nañu waxtaan ci loolu. Hmm. génne ci dara waaye mu ñu di tëb di tëb di daal di daal mais kii c'est mauvais député ah il est pas bon. <laughs> non des na xam-xam. Ah. non moom c'est moom fi mu bëgg a waxee mooy làq doom dóor doom non loolu wax nañ ko loolu kenn weranteetu ko xam ne aussi il faut moomul mais loolu dëgg la wala ñaari question mais loolu dëgg la wala dëgg mais loolu kenn weranteetu ko loolu moo fi am depuis 30 ans Abdoulaye Wade l'a fait Macky Sall est en train de le faire les autres vont encore le faire ils sont en train de le faire dans leur parti politique seen jikko la bés bu ñu dellusee ci nguur gi jikko yooyu la ñu war a changer mais loolu war a waxtaanee ah ba si mais accusation très grave très grave ma wax la bàyyi ma wax la li ma xalaat li xoolal non c'est non yaa ngi accusé léegi yow fi nga jóge ni accusé non man non dama ne non ku wax laa la wax non dama ne. non dafa leer laaj ma kan moo ne woon kan moo ne woon j'ai mis mon coup. mais loolu kenn da ko wéram teeti mais loolu xool dama ko wax ba sool loolu dama ko wax ba jàll ci leneen. waaw kooku kon kon tey xool sama juróomi at maa ngi wax. mais kooku beneen dossier bu ñëwee nu mu koy def. non dama ne non mais c'est d'une évidence seen jikko la. mais kon jeex na non c'est yéen ñëpp seen jikko la. yéen yaa leen mel noonu xam nga lu tax. parce que non baal ma expliquer ne nous intéresse pas ce sont les trains qui sont en retard. waaw loolu nag dañ ko dégg mais expression boobu dafa am nuñ koy nuñ koy faram-fàccee. bu la neexee noo ko déggee rek noo ko déggee rek non expression boobu dafa am nuñ koy faram-fàccee les trains qui arrivent à les trains yow ni nga koy faram-fàccee mais vous rigolez vous pensez libre Samba Dame may ko tudd professeur de français de le commentaire est libre Aliou Aja Aliou Aja <laughs> ah. ah. ah. hmm? non acca borom nag ak meew yi non non vas-y acca borom ak la ñuy déglu hmm? dossier yi par nga ne lii dossier yi war na am impunité ci sur certaines personnes ban situation cour des mais fii mais dëkk bi ay sàcc rekk fi nekk hmm. dëkk bi. Mm-hmm. te dañ te fépp la nag ci administration beeg boo demee poste boo demee ci mairie yeeg boo demee ci y a de la corruption en permanence c'est nous ki sommes comme ça ñun ñooy ay corrompus ak ay corrupteurs ay hypocrites. Mm-hmm. du ñu wax dëgg dañ lay xool nii les yeux dans les yeux jël loxo seen kaamil waat ne loolu moo am te fekk na amul jikko bi moo mel noonu ci Sénégal li ñu war a lijjanti ce n'est pas une question de parti politique de pouvoir wala d'opposition on est tous comme ça les autres ils sont un peu plus à l'aise parce que gouverner wuñu Macky Sall bi mu nekkee ci nguur ak ñoom Moustapha Niasse il faisait exactement la même chose vis-à-vis de Abdoulaye Wade ñoom dëmm lañu ñii dañ leen war a fusiller ñii dañ leen war a rendi ñii tekkiwuñu dara ñii ñoo tax sax man may def politique ñooñu la jël genn wàll bi ñëw commencé di liggéey ñoom di préparer pour jël nguur ku jël nguur nag ñi nga ko ñi nga ko jëlal ñooñu nga koy liggéeyal Habib Sy moo doon xeex troisième mandat moo doon xeex troisième mandat te Habib Sy sept pour la biir yeewu askan wi ay dem boo ñaata année mi ngi nekk député yaa ngi dégg newuñu ko demal nga xeex ca Bawol ba déedéet dañ ko dugal ci kii bi pour mu am plus de chance pour nekk député xoolal ma des gens comme mais yàlla mënu leen sax cité fii demal ne ñoom ñëpp a yam man dama bëgg sénégalais yi xam ni eh, ces gens là baal ma expliqué baal ma expliqué la wolof Njaay ma yeggali bu ñëpp yemoon rek waaw xam nga man man boo may coupé déedéet dama ne yam mais mais ni ñu mais ni ñu wax yi kenn xamu ñu bari mm-hmm. man je suis d'accord il faut relativiser. non yooyu yëpp ñaw xam nga li ma bëgg a wax. xam nga ni Sénégal am nañu ju baax non non non parce que yow actuellement jël nga nga ne yow dégg bi dégg bi. non non non non non li nga wax laa wax. yow laa wax non li nga wax rek laa wax. mais mais mais borom xel li nga borom xel laay waxal. waxtu yu jot borom xel laay waxal. borom xel laay waxal. mais sama juróom baaraam yi ci juróom baaraam yi. Aliou Aliou borom xel Aliou bàyyi ma yëgali bàyyi ma yëgali. Aliou Aliou s'il vous plaît. borom xel waa dégg ma wax fu mu am bàyyi ma yëgali. Samba daa may ko ma daanal. waaw c'est ça léegi Aliou daane la. Aliou Aliou Aliou daane la daane la s'il te plaît. fàttali rek uh-huh. non yow war nga xam ne yow hmm. war nga xam ne borom xel nga hmm. borom xel nga jàngalekat nga moo tax may jarul fàttali parce que pourtant li ma wax leer na hmm. ñi di déglu comprendre nañ ni man quand je parle je parle en général ah, mais forcément bu doon exception kese dëkk yi nga xam ne dëkk yi nga xam ne ay nit baax nekk dëkk yooyu ay nit yu baax nekk ay ay bon vice versa boo gisee ñuy wax loolu eh, eh, Brésil Brésil Aliou s'il te plaît Brésil football la ñuy def. on sait que Brésil football. dafa taw trop. bon Samba Samba tàggatoo waxtu wi jot na Aliou Aliou waxtu wi jot non non waxtu wi jot na Samba Samba. waxtu wi jot na. a a donc am nañ mbégte trop parce que ñëw fa Walfadjri moom mbégte ci ñun. te bu sañoon bu set donc ñu fiy ñëw donc di yee.